nee na sëñ bi nee na Pape mi nee na ñi ngi koy sant di ko yónnee ak cant nee na mën naa fab cantam jaarale ko ci Pape Malick mi mu jëm ci kilifay diine yépp ta na tabaarakallaahu dara umpu ñu ci moom xam nan ko bu baax ba muy gën di ndaw laa ko xamoon ba léegi si doxin wu rafet rek laa xam ci moom loolu rek kon niñ koy sant bu baax ñu koy jot a mu ne Pape Malick nee na ne Pape Malick nee dafa am lu bëgg sëñ bi ñaan ko mbokk yi fi daje di bokki deret kenn ku ne. yéene bi nga am ci sa moroom. yéene bi nga am ci sa moroom. taalibe yi fi daje. fi daje kenn. yéene bu rafet bi nga am ci sa moroom. seen njëggal yowmal qiyaama. yàlla seen njëggal yowmal qiyaama. yàlla bu leen yàlla topp dara. man na ko ci barke yonent bi man na ko mën ci barke man ñi waaw. kon sëñ bi jisaakallah waaw. waaw jawri nit nee na sëñ Bakk yu fay nee na ñi ngi gërëm Aly nguy njaay mi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur bu baax ci taxaw li ko président santoon lépp def na ko lépp man